nit ñi ñoo ko bëggal seen bopp gars yi nag newoon nañ jaay nañu Abdoulaye Wade da Macky Sall dëkk c'est pas vrai c'est faux nit ñi kenn moomu leen kenn moomu leen